journaliste euh, sportive euh, vous avez euh, assisté ay course yu bëri yu nga xamante ni l'international Amadou Gakou def na ko tey de manière ramassée lan nga nu mën a wax ci parcours athlète bu mag boobu nga xamante ni ràññee nañ ko ci 400 mètres. bañ nekkee bañ nekkee ñun ay tout tànk boobu temps stade Demba Diop fan doon defee athlétisme muy sur cendre nga xam ne. euh, moi j'habitais à côté du stade et athlétisme amoon nañ ñoo xam ne dañ leen faawoon donc Amadou Gakou mm-hmm. Amadou Gakou nekkoon koo xam ne buñ ko mosaan gis muy daw da nga naan dañ naan ndax kii nit la ndax nit la on sentait la puissance de l'homme mm-hmm. bu la rombee di daw sax da xam ni kii am na lu ko yàlla may ce que les gens ne comprennent pas c'est Amadou Gakou xam nga Amadou Gakou il a commencé par faire du football ah bon oui il a joué à l'USI Union sénégalaise Union sportive indigène boobu temps euh, euh, équipe boobu ña fa nekkoon mooy Cissé Forêt Rap le petit frère à mon père Insa Lo euh, Iba ki ñu tuddee stade Iba Mar Diop mm. qui est décédé au Mali à Bamako au cours d'un match de foot mm. Gabou si équipe boobu la joué woon après mu ñëw gore mais avant muy def loolu Euh, avant muy def athlétisme il était tellement rapide daw rek la mënoon. macha allah. Elie la doon joué dafa gaawoon ba nga xam ne gars yi di ko xool pas Pacha yaa ngi fàttali ko Pacha. ndeysaan di ko xool naan nii kii kii booba Jal Diop la nekkoon mais Pacha nii nii kii ku ko yóbbuwoon athlétisme. Mm. dina def performance ah après ñu ko jéem ko convaincre. mais il aimait beaucoup le football. Mhm. alors ñu convaincre ko mu dem <laughs> athlétisme mu ñëw athlétisme di def performance di gagner di gagner facilement. Mhm. gis nga même dans le football moom ak Pape Malick Sy feu Pape Malick Sy. Mhm. de Tivaouane. ñoom ñoo créé woon benn équipe football à à à Tivaouane Pape Malick Sy au foot. ok ok waaw. c'était son meilleur ami. ok mais mais record bi pourquoi à votre avis moo tax boobu ba léegi euh, kenn baatu ko 45 euh, une. ba boobu ba léegi. Malick presque plus de cinquante ans. yaa gën a de 68 ba tey. Malick Mexico 68 rek léegi. Hmm. ça veut dire que soit c'est un record phénoménal ou alors la fédération ne travaille pas. wala voilà, athlétisme. ou alors l'athlétisme a régressé. ou alors. non mais mais mais bon athlétisme a régressé parce que ki nga xamante ne actuellement moom moo nekk record 400 mètres di Van Giersken euh, le sud-africain c'est 43 c'est 43 43 donc il y de. ah si ah si 45. que non que c'est pas c'est pas 50 quoi. mais deux secondes yooyu bu les centièmes de seconde c'est important. <laughs> Mhm. nee naa la Gakou phénomène malheureusement si nga euh, bu doon gàggu dafa existé woon ci période yi ci athlétisme mu amoon âge bi nii day battre record du mais ñan ko raw euh, à à Mexico Lee Evans Freeman ak euh, kii kii Jones. Larry Jones Larry James waaye Larry James ñooñu ñoo ko raw. Mm-hmm. c'est les trois américains le meilleurs au monde ñoo ko rawoon mais te à chaque fois gàggu. Mm-hmm. ci période boobu bu dawee bu yeggee xam. day daanu day xëm altitude parce que Mexico man dem naa man dem naa Mexico dem naa Mexique. Mhm. mais euh, dama doon appat. yow mi doon seetaan. man dama demoon compétition foofu. ah ok. noonu laa doon def parce que ay montagne la. Hey. donc Amadou Gakou loolu mu def. Mhm. bu doon période bii dafa amoon vingt ans. Mhm. dina def. 43. alors Sori.